السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماغي نيو سونو خليفة سونو ياكار تي أدنى بروم خم خم بو مك بوبو بو الشيخ محمد الماحي إبراهيم أنياس ميغا خم نتاي مو تخوي سونو باي نك سونو سرين نك سونو خليفة ñu nek ay talibem nek ay jamam nek ay mbamam ndax ci mom rek lañu yaakar suñu lepp ci kaw aduna kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam euh, beneen yëf bi ci nekk mooy am na loo loo xam ni moom wax dëgg yàlla maa ko moomal sama bopp muy sama kilifa muy Cheikh Mouhamed El Mahi ni ngeen respecté yeneen kilifa yi ni ngeen fay demee ak ni ngeen fay toogee maa ngi ñaan sama mbokk yi muy patriote muy pouvoir muy kum mën ci doon soo leen demetee da leen xool ni ngeen di toogee ak li ngeen war ta def ci yeneen kër yi ngeen wane yar googu tamit ba bu leen ko def ci kanamu suñ kilifa muy Cheikh Mahi ndax kilifa te moo représenté Mawlana Cheikh Ibrahim te moo nekk ci àddina bi yëpp foo tourné di nga xam ne Cheikh Ibrahim mooy sëriñu sëriñ si ci kaw àddina kon nag nañ ko respecté te jox ko cër googu maa ngi leen koy waxaat foofu laa am pour wax leen ci sama wàll kilifa beneen bi nag mooy ñun beneen bi mooy kenn ku nekk am nga sa liberté ci àddina am nga sa liberté ci wax am nga sa liberté ci gis-gis gis-gis gi mooy lan mooy fii ñu nekk muy Sénégal waaye fañ nekk mooy na bàyyi ndax gis naa ku ci nekk am nga sañ-sañ défendre sa leader waaye su ñuy wax nañuy waxante dëgg te xam liy dëgg tamit ñu koy wax parce que dégg naa ci ay waxtaan Macky Sall musta bëgg na bàyyi musu leen a bëgg nawloowu leen sax ba leen di bëgg barke Cheikh Ibrahima Niass te li may wax nii ku teg kaamin ma waat ko nañ leen waxante dëgg buñ naxantee buñ xool suñuy intérêt bopp ñu ciy wax déedéet buñ xool suñu intérêt bopp buñ xool ne dañuy bëgg dara wala ñu bëgg suñ poos yi fees wala ñu bëgg ñu far ñu dara wala ñu teg ñu fenn pour muy neex ba du ñemee wax dëgg non non Macky musta bëgg Médina wax leen ma benn feetu Médina baay boo xam ne Macky musu na cee ñëw amut du gàmm du ziyaara du lenn loo xam ne lépp lu muy ñëw Médina rek ñëwul spécial pour Médina day ñëw am programme Kaolack moo ko fay tax a jaar wala muy jàll fenn mu tax fa faa jaar nañ leen waxante dëgg fàtte yàggul Cheikh Ahmed Tidiane Niass al mu ngi nii wax leen ma ndax makki ndax Macky jaale si jaale na ko nañ leen waxante dëgg wax leen dëgg ndax dafa ñëw jaalis ko dafa ñëw ci dëj bi ñëwu ci Fatimatu Zahra ca taawu Cheikh Ibrahima ñas kazalika mu ngi noonu ndax dafa ñëw jaale si leen kon li ñuy toogee di wax Macky man maa défier ñëpp Macky mus ta defal Medina baay man maa défier képp ku mën a taxaw ne Macky dimbale na Kër baay defalal leen dara ñu wax ko muy kër gan ak muy lu mënti doon kër gan ñun ñoo ko tabax bu leen fàtte ne suñ xaalis la ñun dañoo dajale addiya dajale addiya ci jumaa ji mooy ziyaare Baay ñu yëkkati xaalis boobu commencé ci liggéey bi ak leneen luñ dajale woon liggéey bi dem ba ci finition Macky ñëw àggale ñu finition boobu jërëjëf monsieur le président ci li nga def noonu finition nga ñu defal waaye tabaxaloo ñu da fekk finition bi nga ñëw dugal ci sa loxo aéroport bi projet la woon boo xam ne Sénégal yëpp la Souleymane Ndiaye moomu di oote ne taalibe bàyyi la ku gàtt kooku moom lañ joxoon wàllu liggéeyu aéroport yi muy bu Ziguinchor bi ñu ngi koy kii muy beneen ak beneen muy bu Kaolack bi muy fépp projet la woon buñ koy def waaye kër Cheikh Ibrahima Niass taxul ñu koy defar nañ waxante dëgg te aéroport baa ngi ne la ba léegi kenn defaru ko bañ ko daanee noonu dañ ko miire rek miire rek lañ ci def depuis kañ depuis kañ kon nañ bàyyi di tagg Macky Sall président di wax gis nga wallahi jàppaluma ko dara du ma noonam du ma lennam parce que suy njukkal di am moom moo mooy njukkal ndax man maa ko liggéeyal yaa ngi dégg mais amoon yaakaar ci moom yaakaar ne koo xam ne la day taxaw defar Kaolack yaakaar ne koo xam ne la dafay ñëw taxawee ñu ñun ndaw Kaolack yëpp defal ñu dara mais ñu toog gisuñ dara ci moom ñu mën a taxaw fii naan ñu ay màkkeeg màkki nii màkki na stop nañ taxaw nañ taxaw waay te wax dëgg waay Médina Baye bëri na fa jeunes yi kenn Macky balaa ngaa xam ñuy wax ñëpp nañ oote seen mbooloo ñoom ñëpp nañ booloo ñu lay défendre foofu yëpp maa ngi défier ne leen nañ mbooloo ñoom ñëpp oo seen mbooloo nga xool ndax di nga gis kenn kenn ci ñoom amut ñetti nit wala ñeenti nit te liñ lay wax dara du ci dëgg man MC Niass man maa la ko man su may ànd ak nit damay ànd ci dëgg su may wax damay wax ci dëgg gis nga su may wax ci kaw laay wax damay yuuxu parce que dëgg jooju mooy nekk sama xol di génn ñëpp ñuy wax foofu billaahi wallaahi tallaahi amuñ benn nit bu leen topp benn benn nit bu leen topp ku leen di dégg na ku ci nekk oote ñoom ñëpp suñ dajaloo laa la wax nañ nekk téeméeri nit ñu oo seen mbooloo mi suñ ñëwoon laa la wax duñ mat juróom fukki nit cinquante personnes mënuñ koo am te muy dëgg kon lu ma bëgg ñun Medina Baye ci li ñu xamee woon ci xam-xam jàng àddina ñëpp a ñu respecté woon teg ñu ci yoon boo xam ni amoon nañ suñu complex parce que dañ doon wax ne waa Medina baay xamuñ lu dul zikkar waxu yàlla ci loolu la ñu xamee woon mais bañ duggee ci politique bi di tappale commencé mel neneen léegi la nit ñi commencé yëpp te loolu ñun ñoo ko teg suñu bopp te waruñ koo teg suñu bopp arrêté leen ngir xaalis xaalis fajul dara nit dangay diiñ yàlla ba mu lay sàkk teg la ci kaw suuf moom moom jaamam lu ko neex lay jox ci jaamam bi su ko neexee mu jox la su ko neexee mu xañ la te lim la wan yépp ci xañ geek ci jox bi yow mu war a am ci àddina nañ bàyyi di ragal Macky Sall loo xam ne du dëgg nañ ko bàyyi di ko wax ci Médina ku ci bëgg a nekk ambassadeur ku ci bëgg a nekk consul ku ci bëgg a nekk dara dem leen Mon di leen nax rek di jëriñu ci yéen ñun war nañoo taxaw di xool Mon Ndiaye Rahma mii jël suufum kër Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass def ko ci turam loo xam ne suufu bàyyi la mu jël ko def ko ci turam ñuy wax mu naan promoteur la pour mu am financement il faut mu def ko ci turam nangam ba nga xamee ne mënoo koo am yow promoteur nga boo xam ne mënoo koo liggéeyal sa bopp nga bàyyi ko fi ñu seet ñeneen duñ ay dof yéen a ngi gis loolu war koo kaas mënoo leen koo kaas parce que li tax mënoo leen koo kaas mooy ñaar fukki yu ñëw ci yéen ay deux cent mille yi ay cent mille moo leen doy ngeen di jënd seen dignité nga xam ne seen baay moo wax ne wala seen maam Cheikh Ibrahima Niass ne gis na leen ci àddina bi ngeen nekk ay buuru jamono ku ci soxla ay million soo tukkee dem am ko right ku ci tukki soxla ay millions soo demee nga am ko ngeen taxaw ab benn triant boo xam ne du dara muy mon njaay raxma taxaw ñëw jël suufu kër Cheikh Ibrahima ñas bi taxaw osé yéen ay sëtu Baay Niass wala ay njabootu Baay Niass ñu taxaw di seetaan loolu kaasoo leen loolu kaasoo len lolou suñu suufu bay. kaasoo len lolou ngeen taxaw di setan di ñëwaat naan wa Macky nii mu ñëw di len di nax rek ñu ñëw di len di nax yeen war ngeena set tiatu bay ñess bi war ngeen ko xol mom ñukay top ba mi daw mom yeen njabotu keur Cheikh Ibrahim ñess ngeen taxaw di tag Macky Sall yéen war ngeena taxaw di xol nit ñi di ma sonal di ma utal problem, ba ma daw man ci tiatu Cheikh Ibrahim sama bay am lum liggey ci aduna bi ma dekk bir senegal nañ waxante deug nañ waxante deug ndax lolu yeen war ngeen ko setan tay war ngeen tok toog di tag di tag mak Sall ci lolu yeen ay njabotu Cheikh Ibrahim taxaw di tag mom nan defal lañu ni defal nañu la ba pare ñi jël tiatu Baay Ñas bi topp ko ba mu daw dellu Amérique ci loo xam ne ci ay dëgg rekk laa taxaw gis dëgg joteewu kenn dëgg laa gis di wax dëgg nañ leen waxante dëgg waaye ca bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi li ñuy wax te gëmuñ ko ngir alal nañ xam ne ëllëg dañuy dee te bu jàpp ne képp ku dee na nga xam ne bés ba ngay dee bés boobu mooy sa mbugal suñ waxee ñu naan waaw lu mën ci doon ci famille bi maa ci mel nii yeah amul problème parce que man maa nekk bañkat kenn du ma noot ci kaw àddina kenn kenn kenn du ma noot ci kaw àddina loolu dama koy wax kenn du ma noot am naa kilifa nag sama kilifa mooy sama sëriñ Cheikh Mouhamad El Mahi Ibrahima Niass su ma waxee léegi na ma sukkal nga raam wallahi laazim ma raamee ba fu mu bëgg su bëggee yeeg sama kaw ma boot ko ndax mooy sama Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim Niass rek laa bëgg lumay kas kaas du dara limay xex du dara limay xex yeb pour njëriñu kaawlak la ak njëriñu merina bay gi ma dekk loolu rek lay kaas kaasuma lenen. soxlawuma lenen dama bëgg ñu xam suñu bop xam ñun ñoy ñan xam kan moy Cheikh ibrahim ak lim ñu liggéeyal ñu bayyi di tag makki di wax naan Medina Baye lim ñu defal ak lim ñu defal lan la ñu defal na kenn taxaw ne Macky sàll jox nañu ñun ñun njabootu Baye gi lan lañ ko mus a lekkal man de cent vingt mille lañ ma mus a jox cent vingt mille yi ma delloo ko papi may ma yaa ngi oote cent vingt mille lañ ma mus a may cent vingt mille yi ma delloo ko te moom lañ mayoon njabootu Baye Niass yëpp ci gàmm wax ma ban njabootu Baye Niass ku mën a taxaw nañuy bàyyi nañuy bàyyi di diaboliser di wax ne Macky mu ngi indi li mu ngi indi laa ci Médina Baye mu ngi def daal gisuñ ko man de ci njaboot gi laa bokk gisuma ko gisuma ko bokk mësuma koo gis musumaa gis alalu Macky ci njaboot gi laa bokk musumaa gis alalu Macky barke Cheikh Ibrahima Niass kon lan la ñuy defal nañ arrêté sañ delluwaat ci liñ wara delu moy lan kam kamu Cheikh Ibrahima Niass ay jangalem ca lam ñu tegon ca daara ja nga xam ñun suñ soxla soxla luñ gouvernement gis ngeen kep ku àndut ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yow da nga bëggut sa rew wala da nga bëggut avancement ci sa rew wala da nga bëggut sa njabot parce que lim ñu wax moom ci loolu rek lañu jàpp dafa ñëw taxaw 15 ans di liggéey mu sa lekkal kenn dërëm mu taxaw wax ne mu ngi xaar kenn defiyee ko ñu ne deetawaay mu ne li ñu war a def mooy ànd nawle ak tubaab bi suñ demee bay waxtaan man mu moom sama suuf su ma amee 60 tubaab bi am 40 wala ma am 80 mu am 20 loolu développement la discours yu mu génne wane ne sëriñ si ñu koy diaboliser temps yi di wax sëriñ si yéen seetlu leen ñuy tontu ñëpp lan lañ doon ci kër sëriñ si gis ngeen nañ bàyyi kenn kenn benn nit koo xam ne rek mun ngaa nekk sax doomu sëriñ ci biir sëriñ si fekk yow taalibe yi dégluwuñ la soo demee benn nit dégluwu la day leen bàyyee xel yéen ñun patriotes yi nañuy bàyyi xel ci ñii di wax ni buñ leen déglu tojuñ fenn والله لازم تجون فن تمنت نيخ نيخ ولا نقر نقر إن شاء الله با بريزان سونكو دو نيك سينكيم بريزان سينيغال لول ما نلين كوي واخ دا نا ميتي دا نا ميتي لول ناخ دارا يومب تي كاو ادنا ماغي واخ ني لم ني انكارني واخ كو نان لين تي جاب دومو داراي نان لين جاب ني گم نان لين جاب تا ان شاء الله wallahi dana metti dana metti waaye mu neex mu naqari Sonko mooy jël réew mi kon loolu laa amoon pour wax maa ngi jégalu ci kàddu yi xam ne naqar moo ma metti rek ndax suñ toogee di tagg Macky sàll di wane ne dafa liggéey ci biir na Baye man mi may doomu na Baye ñu sonal ma ba ma daw man man ba ma daw man pare woon naa ci Amérique ñu sonal ma ba ma daw ñëw toog fii làqatu si nëbbatuwuma de damaa daw toog làqatu si carrément nëbbatuwuma ndax man dëgg lañ ma xamee ma daw ñëw làqatu si ndax ki ma sonal mooy président de la république wala ay ñoñam ñoo ma sonal ci dëgg rek dëgg gu ma def ba pare ñu toog seetaan ma man en tant que doomu Cheikh Ibrahima ñas ma daw ñëw làqatu si ñu taxaw di tagg kooku naan nu mu bëggee Médina li mu defal Médina lan la defal Médina su defaloon Médina wala bëgg Médina man mii di doomu Médina dina taxaw man sama baay nga xam ne maa alaaji Abdoulaye Niass dafa jóge ba Jolof ñëw xare biir Saalum ba dëkk fa man danañ ma génne man te senegal suñ ko doon séddale tey damay am sama wàll ci maa alaaji Abdoulaye damay am ci sama wàll ci ki nga xam ne tamit mooy Lat Joor Ngoone Laati Jóob ñaar yooyu seq ma man war naa mën a daw man war naa mën a daw waaye ñu ngi dénk suñ bopp yàlla te yàlla danañu samp waaye dinañ wax du tere li nga xam ne mooy dëgg ak li ñu nekk yow du tere danañ la wax dëgg googu amoo yërmande monsieur le président parce que sax xeet yëpp ñun dañ laa jàppale te yàlla rek tax fal la nga tourné jëlaat sa peuple di leen mbugal ci yërmande guñ amoon ci yow kon yow amoo xolu yërmande te loolu lu leer la balaa nga xam ne amoo xolu yërmande liiral sa bàjjan bee mu ngi ci sama Facebook lam doon nettali man ba ma seetaanee loolu ci laa xam ne président ku ko neex mun na laa rey ku ko neex mun na laa rey ku ko neex mun na laa faagaagal ndax sa bàjjan aqan taxaw ne ñëw na ba ci palais bi ñu yëkkati cinquante mille di ko ko jox ah ci laa xamee ne kii pare na pour rey ñëpp nag waaye ñun tamit ñu lay jox suñu bopp nga pare wax naa la ne la fa ngay mujjee wallahi mujjee gu ñaaw ngay mujjee te nag na nga xam ne bis boo wàccee international bi danañ la àtte américain yaa ngi sa kaw na nga xam ne européen yëpp a ngi sa kaw kon gars maa ngi jéggalu du guddal di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm senegal yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ci barke rasulullah am na ko mën na ko yàlla na ko def kontaan naa bu baax jërëjën jëf maa ngi jéggalu encore di jéggalu samay mbokk taalibe di jéggalu famille bi xam ne mer rek la en tant que doomu Baye Niass caatam ñu ñëw ñu taxaw may gis ñuy tagg màkk sàll naan lii ak lii ak lii te loolu dara du ci dëgg kon Macky deful dara ci Médina maa ngi koy def défier suñ gisee lenn lu fa def rek nañ ma ko wax te nag li ma xam dafa bëri li ma xam dafa bëri te li ma yore dafa bëri واو لما قام دافا بري لما يوري تي بير مرينا نان اتاشون لول امون بروح السلام عليكم ورحمه الله ام سي